bu xóot daal di koy suul ne sénégalais yi bu dee kii ngeen yaakaaroon daw leen tëddi lagg leen fii moom ay élection moo fi amul 25 février manifestation am diggante pro Macky Sall yeeg F24 Abdou Karim Fofana naan déet mooy yéen dialogue bi mën na koo bañ a jari président Macky Sall mën naa jàpp da tribune yéen a kaay naan kon dama ni la coow li coow li nag fii la nu jëm ak lu coow li bari bari jàpp leen ni fii la nu jëm ña waxtaan ngir dialogue ngir wutub dat waaye processus bi ci boppam la ñuy tàmbaliwaat à zéro boo moytuwul maam booy jaawa naan fi mu ne président ma ki Sall ña nga xam ne jàpp nañ leen jàpp seeni tur ne ñoo war a bokk ci élection présidentielle bi ñooñ dong la war a woo ci dialogue yéen bi dee média bi maam booy fi mbir yi toll ak lii xeeñ mooy boo moytul dañuy seeyalaat carte gi tasaat ko nag daal di commencé waat processus bi à zéro ndax présidentiel boo xam ne acteurs yi nga xam ne ñoo ci ëpp solo war koo joué bu doonu film ñooy acteur principal ñii leenu jël daal di écarté ci wot gi yéen boo boobee ngeen bëgg ne nan ca dem ak acteurs yi nga xam ne daanaka yu ñakk pexe la léegi ñi nga xam ne ay acteur majeur lañ ci mbir mi def nan tribune yéen a kaay naan kon xam ngeen wax ji mooy mbir mi boo moytul dees zéro te tey jii mani la ji jii FC 25 fas na yéene ne daj conseil constitutionnel ab demande demande boo xam ne daf naan koon nañu jàpp dak Cheikh Yérim Seck ci turbine yéene kaay naan leen yéen xam ngeen boo moytuwul élection 2024 sax du ngeen ko am ci réew mi moom Cheikh Yérim naan leen président Macky Sall day fa mu taxaw a dëgër wala ndax laataa muy dàq élection présidentielle bii daal dinay waxtaan ak Karim Meïssa Wade waaye Sall waxtaan na caak Ousmane Sonko ba nuppi bugaan ngay dani ci yéene kaay bi naan li tax wuy jiw ma ndax nag lii daanaka kap naxee mbaay la sëlmal sénégalais yi la dialogue bi daal dinañ koy door ca assemblée nationale waaye ay ndaw yoo xam ne ñu ngi leen di yónni ñuy wax ak ñenn ñi gëm sa bopp ni la du doon bayub sa raxub kenn te du sëgg ñuy jaar ci ndoddam ngir di waxtaan ngir ut ay saafara ci deux minutes pour lire l'essentiel mu fay xam le ni dëgg la ay candidat yoo xam ne dañu ne dañu ñoo spolier caxa-caxatee suñu àq ak yéeleef sepp ñu ci élection yi ci loo xam ne jaarul yoon waaye tax nag ñu daal di caxat-caxatee suñu ngor dew ñu yàpp lewuñu ci 24 moom Sall day bëggul ab dialogue xam nga lu mu bëgg ab caution lii mu daal di def la bëgg kum ca àndal lonk ko mbag naan nag waxtaan naa ci ñi yeyal la nga xam ni moom la fas yéene ci réew mi ca l'indépendant yéene kaay muy xam ne ni Sall jébbal nga ma invitation maa la ko baal fayallaahu direct news di ma xamal ne moom Bougane Gueye Dany nee na njàqare naqar ak fàddu gu metti la ñu daal di def ci démocratie bu réewum Sénégal ak fi mbir yi toll le mandat yéene kaay naan moo taxit nee na demul yeblewul ci dialogue président Macky Sall bi ci critique yéene kaay naan kon dañ koo di peeb waaye daanaka def semblant la le point ak ci naan bu nekkee ni moom sall sàll daal réew réewum Sénégal la bëgg a joyantiwaat ñoŋal ko ba àdduna wërngal këpp ku ñu gis nawaat nu na def la ko conseil constitutionnel daal di dëggal ci waa grand place mu fay xamle ni candidats poli yi amul kenn koo xam ne mës na dem ci président Macky Sall ne ko dàqali élection ña ca président Macky Sall waxal nag ba dàq gi am nan génn yëy yàbbi fi ne bu amee ku ñu fi mën a wooy ab putschiste day moom mi nga xam ne fukkeet ak ñaar def na ko ci nguur gi ñetti fan ci weeru février mu daal di bokk élection Sénégal daw ak moom naan ko ci bëgg ñëwal dàq ji ma ñëw toog ak ñun ñu waxtaan géy ni ko waxtaanu waxtaanuñu ñëwuñu yablewuñu ci fukki at ak ñaar ñeen fukki junniy milliards jox nan la ko fanweeri fan ak ñett desele sa nguur ñuy lam laamee ban bilan lan la war a defal yow sàll diggante jàppay adversaire politique di tëj ak di naj ci loo xam ne tegoo ko ci benn base juridique boo xam ne dëgër na tey ji nag yow sàll def nga la ngay def gaay di la dàqee fu ne nga bëgg wéeru nag ci ñenn ñi ngir layal nag li nga def ci bopp réewum Sénégal gëm sa bopp temul spolié yi demuñu sa waxtaan daal di nga ci wéet 24 heures yéeni kaay naan Déthié Fall nee na dew ma yëpp lew ma yónneew ma dew ma jalogeeg président Macky Sall moom Déthié Fall ci Walf Quotidien naan président ki Sall bëgg-bëggam lenn la de mooy daal di ñuy xaajale ba mar day taali vox populi mel ni ku naan kon dafa mel ni am na de ndax fukk ak juróom benn ci fukk ak juróom ñeent candidat yi moom nee ñu demuñu léegi président ki Sall tey buy jaloge ku muy waxtaanal Déthié naan kon xanaa du ngeen dégg président Macky Sall bëgg-bëggam du jalo waaye xaajale ñu te képp koo xam ne dem nga wuy ji jaloog bee bokk nga ci ñi sabab coup d'état institutionnel bi am ci réew mi yéene kaay bi naan kon moom président Macky Sall fi mu ne daal dinay xaajale spoliés yi xaajale na société civile na candidat yi nga xam ne sax daal dinañ leen di daganal ndax fi mu ne boo demee ci spoliés yi Bougane Gueye Dany nee na dialoguma docteur Abdourahmane Diouf nee na dialoguma Mary Teuw Niane nee na dialoguma Mimi Touré demul docteur Babacar Diop demul bés bi le jour naan kon moom président Macky Sall ngay woote FC cinq talal ko loxo naan ko bàyyi bàyyi ñëwuñu yéene kaay bi naan kon moo tax président Macky Sall ñoom Moustapha Niasse ñoom Mahammed Boun Abdallah Dionne lay dialogueel l'observateur naan koon dialogue bu doy waar critique yéen a kaay naan ko déet waxtaan kay ndax waa kangam ci boppam la président Macky Sall nar a dialogueel l'observateur naan koon tendance bi réew mi jël baaxul te président Macky Sall à tout moment mën na jokkoo ak waa conseil constitutionnel te bu jokkoo ak ñoom day aw dat mënees na koo jàpp ci anam woo xam ne loxo dana dar gémmiñ les fa yéen a kaay naan koon fi mu ne naxee mbaay képp kott moo am ca jëm ñaajo Sud Quotidien naan koon ca cappaandaw ga ab sénégalais yi amnistie goo xam ne ak baale la Thierno Alassane moom président Macky ay ñoñam ñu ay dossier la yoon wu mu leen jaarale baal leen libération yéene kaay naan man tey amnistie bàjjo bi waaye tam dialogue bi bàjjo bi daal dinay xaajale bugaan géey danee nga naan dialogueew ma ndax président Macky Sall ñi mu ma leen di dialogueel lu mu layal la bëgg docteur Abdourahmane Diouf naan gàccee ma jàpp Jibi Gueye chef protocole bu Ousmane Sonko naan jokkoo amul diggante Ousmane Sonko ak Pastef na ko wuy ji Ousseynou Ly bokk ci cabinet Ousmane Sonko nan président Macky Sall tëgg élection laataa ñaari fan wala gannaaw ñaari fan ci weeru avril la ci yem en tout cas dañoo war a wuy ji laata nag ñu doon ñi nga xam ne dañuy wéy di ñàkk ndax ña ñuy lànkloo ñëpp seen bëgg-bëgg mooy leen Ousmane Sonko bañ a génn kaso l'enquête naan Khalifa Babacar Sall boobu mangay ngay ñaari nationalité am naan benn la am direct news naan kon Khalifa Babacar Sall wan nu décret bi Abdoul Mbaye wane nab décret wan ñu décret lu ko mooy procureur lay def la mu def Rose Aji Mbergane Kanouté ak professeur Moussa Balla ci turbine yéen a kaay naan leen wuy ji leen ndax jafe-jafe goo xam ne mës am ci àdduna wërngal këpp ci taabal lañu ko réglé yéen a kaay des bi naan man pàccub APR daal dinay taxawal beneen mouvement muy mouvement des femmes de l'APR Macky dans nos veines ni ki démb daal koy taxawal ne acteur politique yi wuy ji leen présidente ba madame Badiane feggoo ci ak Thérèse Faye ak ñamu àndal ne wodd nañu ba dëgër bépp attaque boo xam ne dalati na ci président Macky Sall day jaar ci ñoom ba nuppi ndax nag ay jamono ngi nii ñenn ñoo xam ne dañuy def semblant ànd ak ñoom ña nga ànd ak ñeneen di xeex président Macky Sall ci suuf di gor ay tànkam moom président Macky Sall waa Macky dans nos veines naan du am tey du am ëllëg Mame Diarra Diouf responsable APR directrice des loisirs ci libération yéen kaay ne coow la coow la dañ koo sippi waat Mame mbay Niang ci kàddu yi nga xam ne yëkki woon na ko dal ci kaw ñenn ñi maam jaara naan daanaka artu